ëllëgee di ñaanal sunu kilifa gu tedd gi ak mbo sunu kàddu yi nag ñu yëkkati dañ koy yëkkati rekk ci ndigal waaye ñi nga xam ne si ñoo ñu jox kàddu gi ñoo ñu ko dàq wax fuuf waaye nag ñoom ñi ñu ko jox danañ ñu ko téyal ba duñ ci def njuumte loolu rekk lañuy ñuy sàkku li njëkk ci Cheikh Gueye mi ngi ci jataay bi xam naa moom moom lañuy ñuy jox mu présenté kilifa yi nga xam ci ñi ngi ci kaw tribune bi ak autorité yi nga xam ne si nii ci réew mi lañ nekk te egsi ci jataay bi bokk kook ñun kàddu yooyu parti boo xam ne si nii euh, Bilal Sidibé moom it di professeur nekk ci Ndar dana ci jël kàddu def ab discours ci français bu ko defee ba noppi ñu jox Serigne Fallilou Bousso Tamba si moo fi jox kaddu gi sëriñ Seexuna Buso moom Cheikh Mouhamadul Fadal Buso ñuy ñaan suñ borom dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem buñ jógee foofit jàngkat yi nga xam ne si yàlla dogal ñëw nañ ci barab bi ak képp koo xam ci war nga cee jël kàddu rek danañ suñu kilifa yaa ngi fi te am na ñoo xam ne si nii war nañ fee jël kàddu ñuy sàkku mbooloo mi ñëpp ñu déglu leen xam ne lii rekkat mooy jataay bi lii mooy liggéey bi nii ñu ñëwet nañu fexe ba suñu gan ñii nañ leen teral te teeru leen ndax li leen fi indi mooy liggéeyal Serigne Touba kon ñoo bokk liggéey bi. ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu en l'occurrence Serigne Mam Tierno Mbake, qui est accompagné de Serigne Fallou Bousso Tamba, Serigne Cheikh Ona Bousso, Serigne Cheikh Mbake, parmi l'autre pour Cheikh Amadou Bamba, que toutes ses missions soient accomplies et avec tout ce qui l'accompagne pour que ça connaisse un couronnement et un succès sans précédent. que sëñ Mountakha avec tous ceux qui concourent à sa mission la noble mission qu'il a pour Cheikh Amadou Bamba et que tout aboutisse qu'il nous regarde très longtemps et en très bonne santé la notre mission d'aujourd'hui c'est la caravane de Mayumba Mon nom est lié parce que l'exil qu'il a effectué ici est célébré. Son départ en exil est célébré chaque année au Sénégal au 18 Safar, qui est devenu un rassemblement de la, toute la communauté mourite et toute la communauté musulmane réussir à son ce qui est rare et qu'on n'a jamais entendu dans la communauté. On, on célèbre son, son, son, son départ ici au Gabon, ce qui reflète le 18 Safar. Donc je disais plutôt que Cheikh Amadou te murit qu'ils ont un privilège qu'aucun pays d'Afrique centrale n'a eu à travers le passage ici de Cheikh Amadou Bamba au Gabon. Ça, c'est un privilège parce que connaissant la dimension spirituelle de l'homme et les bienfaits que tous récoltent de son passage ici au Gabon, c'est quelque chose que nous Applaudissements qui a eu l'amabilité de donner dans son arrondissement baptisé une rue, rue Cheikh Ahmadou Bamba. C'est quelque chose que lui déjà ça commence et nous devons le remercier de tout cœur. Albert parce que nous sommes ici au Gabon et que c'est lui qui représente la mairie centrale, l'hôtel de ville. Il va nous faire son discours de bienvenue en quelques termes, parce que nous devrions commencer la cérémonie depuis 16h30 et il est 19h et quelques. Donc il va nous faire un discours de bienvenue parce que c'est lui qui représente la mairie centrale, l'hôtel de ville. Après lui, le responsable de la va nous faire part du programme qui a été établi pour aller à Mayumba et au retour passer par Lambaréné sur les traces d'exil de Cheikh Amadou Bamba. Après Baye Cheikh Mbeg, il y aura la représentante des pèlerins qui est Madame Bator, Bator Sek. avec nous Sénégal ici présent, M. Seydina Omar Tchou. Et après M. Seydina Omar Tchou, M. le représentant du Khalif général des Mourites, Mam Tchernom nous fera part de Mourit Gabonais. Et maintenant, après, monsieur le docteur Saliou Ndiaye, qui est professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, aura à nous commenter, à nous faire un bref résumé de ce que le conférence donc je vous remercie pour votre présence et je souhaite qu'Allah nous garde qu'Allah nous garde et qu'il nous fasse longévité pour notre khalife général des Mourides Cheikh Mamadou Mountakha avec tous ceux qui concourent à sa mission pour que sa mission soit euh, sa les mourides, et tous ceux qui sont venus qui avaient l'intention de venir, qu'ils prient pour nous. Je vous remercie et je vous remercie de votre attention. Soyez les bienvenus et nous remercions tous ceux qui sont venus ici présents et tous ceux qui de particulièrement viennent de l'extérieur nangu leen ñaan sëñ baa ngi ñaan na ñépp ni amin fu waay toll na ni amin sëñ mun Nous avons le plaisir Monsieur le maire, pour présent et de nos autres présenter un message de bienvenue. Monsieur le maire, nous vous donnons la parole. C'est lui qui a baptisé une route, une rielle au nom de Cheikh Amadou Bamba. C'est le maire du deuxième arrondissement. mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je vais partager, euh, je voudrais partager ces moments. C'est tellement émouvant pour moi que et à tous Ma présence parmi vous ce je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Tout simplement parce que je voudrais vous dire, ceux qui ne le savaient pas, vice Lorsque le chèque arrive au Gabon, une des premières personnes euh, qu'il a à côtoyer était mon père. Et il en a fait le premier musulman gabonais. depuis que de cette grande communauté qui se dénomme Mouride. On dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui ne le savent pas au niveau du Gabon, euh, je pense qu'il en est de même pour euh, ces réalisations pour rien. Il faudrait que quelqu'un ait marqué l'histoire pour qu'on attribue un nom à cette personne. C'est ce qui a été fait en ce qui concerne le chèque euh, Amadou Bamba. avons et pour la petite histoire que j'avais, à faire en sorte qu'on retienne ce grand nom et qu'on attribue à ce monsieur. Ce grand monsieur, pour immortaliser son passage, pourquoi pour respecter la qualité de cette personne, nous avons attribué une rue pour que son nom soit immortel. Je voudrais donc, euh, au nom de Madame le maire la commune de Livre, et à tous au Gabon, précisément à Libreville où vous êtes maintenant. Et euh, de vous souhaiter, euh, pour ceux qui auront le temps de faire le déplacement, que cela se passe sous la protection d'Allah, que vous soyez partis et revenus et chacun. Merci, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces mots aimables à l'attention de la communauté sénégalaise et plus particulièrement de la communauté mourite, et surtout de nos chefs religieux à la tête desquels se et toute la délégation qui l'accompagne. Nous vous remercions. Cette liste a à un moment où Serigne Bara Sarr n'était pas encore, Serigne Bara Kane n'était pas encore parmi nous. et Serigne Abdourahman Baké, que nous connaissons tous et qui sont tous les jours avec nous. Donc nous leur souhaitons la bienvenue. Serigne Baraka ñëw ñëw tuuti lii ngi leen ci turu waa Gabon yépp di wax ni lii fi am tey mu doon lu sedd xol di doon loo xam ni jëmmal jëfi sëriñ Touba ja nga xam ni ba mu wàccee ñaari tànkam fii ci débarcadère bi daa wax ni yasaral jooju nga xam ni bisub tey jii suñ borom dogal ay meññeent yu bari feeñ ñun waa Gabon ci turu président daayira yépp ci turu mbooleem notable ak magi bi fi ne ñi ngi tudd turu ñenn ci ñoom ñum àggul tamit ñu xam ni ñi ci des yóbbaale de leen man liggéey bi te ànd ko ak taalibe Gabon yépp ñi ngi jël ak cant ak ngërëm di ko teg ci loxol sëriñ maam Thierno Koso Mbàkke mi nga xam ni moom la fi mu Muntaxa yebal ci ñaareelu yoon tey jii mun bu Mbacké yebal na fi ay nit ñu bëgg koo jot li ci kanam nit ñi foofu lañ ko bëggoon a boole waaye ñi ngi wax ni waa Gabon ni ñu àndandoo toog fii teeru sëñ bi tey ni lañ fas yéenee ànd ak sëñ bi ba dem Mayomba am wax bokk ci mooy mbedd moomu ñu tuddee Sëñ Touba te excellence mii nga xam ne mi ci kaw di Seydina Omar Thiaw ba mu ko yëgee bind na courrier yónnee ko ci moom jox ko nga ak cant gu bawoo ci réewum Sénégal nga ñu bàyyi ko. pas assez. Pas dit, garde cette zeste dans leur cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme cette soirée était en même temps dédiée à Serigne Fallou Bousso liggéey fi liggéey fu ñu tàmbali liggéey bi te yàlla def ñu jiitu ñu di leen ci rendre hommage Cheikh Falilou Bousso li mu may fii communauté l'islam bi ci Gabon bu ma ci waxee benn mu doy ci di ko fa di ko waxtaane sunu girug dund Serigne Koso Gabon tegle désolement du Gabon demandé ci pré ci communauté islamique bi di jullit dañoo soxla barab bu xam ne dañ fay denc nañu baaxoo di ko denc seeni nit buñ leen wanee ginnaaw borom réew mi maye suuf su yaatu moom sëñ Fallou bu sa mu dem miir ko ñi ngi koy njëkk def mooy boole leen ak ñaan jàmbaar jooju nga xam ni mooy sëñ Fallou Bousso ak soxna Jaara Bousso mi nga xam ne Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko boole woon ak moom ne ko demal Gabon jàppale ko ci liggéey ba taxawu na ko ba ñu jiitu dafa baaxoo li sëñ Tuubaa digle fii ñu def ko nag moo sut fanu doomu aadama waaye nañ ko fi fondement loo xam ni bu ëllëgee lu ñëwati mën ko cee tegu sëñ Fallou Moussa jëf na loolu nee na sëñ Modou saa moo fondement woon yoonu mu it waaye fii mu agsi tey moom fekkewu ko li tax waa Gabon xalaat ko ba boole ko ci liggéey bi ba ca jiitu mooy sëtub sëñ Touba la buy liggéey taxawal ay fondation di dimbali nit ñi ci Touba ak ci Sénégal ku sa bët xonk ci Touba moom mu jàpp ne moo lu yàlla kon nag sëñ maam Thierno ak ñi nga xam ni ñoom la sëñ bi yebal te kenn ko mooy sëñ Muntaxa Njaay bi nga xam ni mooy ahlu minam ak ñamu àndal ñépp ñi ngi leen di yóbbante ngërëm loolu ak cant gi ci soxna si di wax ni nag li ëpp ci wax ji nag maa yombal lañ ko fas yéene la la foofa lañ ko xamee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu